Aliou Sall rakku njiitu réew mi di Macky Sall jiite nag caisse de dépôt et de consignation ñu koy tuumal nag lu jëm ci mbirum guerre mbirum njublang mbirum wuruc mbirum mbuxum pétrole ak gaz bu Sénégal moom ak Frank Timis ba tey coow li wéy nag di lëmbaaji li nga xam ne moom mooy réewum Sénégal yéenakaay a gii di réew mi quotidien ak l'observateur ak las mu ñu xamal lan ñu jamono ji nag njiitu réew mi di Macky Sall daan nay nag fas yéene ubbi ab enquête ci mbir mi enquête bi nga xam ne waa BBC def nañ ko ci pétrole ak gaz bu Sénégal te ñu tuumal Aliou Sall na dafa def ay wuruj ca wàll woowu waaye nag yéen a gii di l'observateur mu ñu xamal lan ñu rapport IG bi nga xam ne jamono jii ma ngi jàbbaa jonge ci réseaux sociaux yi loolee tamit tax na ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi nee na nag fas yéene naa jokkoo ak procureur ngir nag ñu daal di say ubbi ab enquête ci wàll woowu ba mu nag leer ci bopp askanu Sénégal yéen gii di ñu fekk fa Aminata Touré moom nag la mu xamle nee na procureur na jël ay responsabilité am ci mbir mi ndax nag mbirum pétrole ak gaz gi nga xam ne jamono ji ñoo ngi koy jàbbaa jonge mi war nañu si ubbi ab enquête xool nag dëgg gi fan la fare ba tey ci biir yéen a kaay gii ko di Quotidien mu ñu xamal lan ñun njiitu réew mi di Macky ci lu jëm ci mbirum pétrole bi ak gaz bi nga xamante ni ñoo ngi ko ciy tuumaal moom ak rakam jamono ji sonn na ndax nag xeer yi ma ngi mel ni tulleeg male waaye nag ñi nga xam ne ñooy ay àndandoom maanaam ay allié ma dañu ko dumóoyu ndax nag jàppale ko benn yoon ci li nga xam ne mooy xeex bi jamono jooje nag opposition bi maanaam ku jëgi ñoom nag ñoo ngi teg pression bu metti ki nga xam ne mooy njiitu mi ak ki nga xam ne mooy rakam di Aliou Sall ñu koy tudd ci mbirum njublang mbirum wuru jëm ci pétrole ak gaz bu Sénégal ab enquête boo xam ne waa BBC ñoom ñoo ko daal di amala yéenekaay gii di L'As ak L'Observateur mu ñu xamal lan ñu kuréel gi nga xam ne mooy aar li ñu bokk ñoom nag ni ki démb doon nañu jano ak taskatu xabaar yi la ñu xam ne nag nee nañu mbuut yi nga xam ne waa BBC wax nañ ko ci pétrole ak gaz bu Sénégal doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne waruñu koo bàyyi mu sedd te ñoom nag maanaam ajuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu wàcc ci mbedd mi ngir nag naqarlu lu ni mel yéenekaay gi mu ñu xamal ñu Thierno Alassane Sall ak Abdoul Mbaye ak Mamadou Lamine Diallo ba léegi nii nii bàyyeeguñ nag lu jëm ci mbirum pétrole ak gaz gi nga xam ne moo lëmbaa jër réew mi ndax nag tey jii danañu jano ak taskatu xabaar yi sulliwaat ay mbóot ca wàllu woowu Mohamed Dia nekk ab expert financier nekk nag sa États-Unis ci yéen kaay gii di Sud Quotidien la mu xamle nee na mbuxum ak ger gi nga xam ne ñoo ngi koy tudd di tudd Sénégal jëm ci wàllum pétrole ak gaz loole nag mën naa yàqal Sénégal ay partenaires économiques ak financiers yu bëree bëree bëri ci àdduna bi ba tey ci biir journal bi ñu fekk fa nag mouvement Guédiawaye la bokk ñoom nag la ñu xamle Sall moo def njombe gi te nag la ñuy mooy Macky Sall dàq ko ngir nag justice bi mën a def liggéeyam ci wàllu woowu ba tey ci biir yéen kaay gii di Sud Quotidien ñu fekk fa Ibrahima Sané moom nag mu nekkoon ay jamono taskatu xabaar ca BBC moom nag la mu xam ne ne a Aliou Sall ak tuuma yi nga xamante ni moom lañ koy tuumal dafa nag war a tekki ndombal tànkam na yéen kaay gii du l'Observateur mu ñu xamalal ñu scandale bu rëy bi nga xamante ni ñoo ngi koy wax ci réew mi jëm ci mbirum di Macky Sall jamono ji ma ngay wër ana ñan ñoo jël génn ci mbedd mi journal bi nag mu ñu xam ñu Nafi Ngom Keïta mi nga xam ne ay jamono mu jiite woon OFNAC moom la palais ba gën a nag teg bët te nag soo muy tuulee dina am benn journaliste boo xam ne tamit danañu ko déglu sa wàllu woowu ngir nag fësal rapport bu IGE tribune yéene mu ñu xam ñu commission de surveillance bi nga xam ne moo nekk caisse de dépôt et de consignation ñoom nag weddi nañ ba tëdd sa naaj wa nee nañu amul benn yoon boo xamante ni Macky Sall sant na leen ngir nag ñu daal di teg ay pexe ngir nag daal di fay jële ki nga xam ne mooy Aliou Sall yéene kaay gi mu xam laan ñu ñoom sax jamono ji nag dañuy tubayul Aliou Aliou Sall ndax jàpp nañ ne def na caisse de dépôt et de consignation liggéey boo xamante ni war nañoo mën a nekk ci ginnaawam ba tey ci biir journal bii di Vox Populi Aliou Sall maire bu Guédiawaye la mu xamle nee na du démissionné benn yoon ndax nag su ko defee ñi nga xamante ñooy ay noonam dañuy am lu leen neexa yéen a kaay gii di Dakar Times ñu fekk fa Samuel Sarr la mu xamle ci lu jëm ci mbirum ak gaz bi nga xam ne jamono ji coow li bari na ci réew mi moom Sarr Mbundu la na ñi nga xam ne ñoo xam dara ci pétrole bi waxuñu ci ma ngi ci yéen a kaay gii di Dakar Times yéen a gii di réew mi quotidien ñu fekk fa Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides moom nag nee képp koo xamante yaa ngi Touba te nag wàccoowoo ak wormay dëkk bi danañu la toroxal génn la dëkk bi moom Serigne bi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien la mu xamle nee na ñi nga xam ne ay sëdu Serigne Touba lañ te nekk Dakar ñoom ñëpp nag war nañoo dumooyu Dakar ñëw fii ci dëkk bi di Touba stade yéen a kaay la mu xamle nag nee na kàddu yi nga na ko combat bi digganteem ak Modou Lo dana wàccoo ak moom maanaam dana ko duma dana ko daan yéen a kaay gii di réew mi ko di cee mu dikkal ñu si ak njombe ak ñaawteef gu rëy goo xam ne xew na nag fële ca Grand Yoff ndax canal bu Grand Yoff la ñu fekk benn liir ñu daal di ko fay sànni jamono ji nag ubbi nañ si ab enqete